asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbacke xalif général du Mouride yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jaar ci Cheikh Mahamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir mbake wàcc fi ci daayira Muxadamatul Xidma bi nekk ci jumaa yi Touba ci njiitu Serigne Afiya Buso waa daayira Muxadamatul Xidma ñoo yëkkati kàddu ndigal yu bàyyi ko ci seriñ bi di le ne képp koo xam ne yaa ngi julli si ci jumaa ji ñu ngi sàkku ci yow nga takk ab masque ci ndigalul Serigne bi. waa daayira Muxaddamatul Xidma ñi ngi sàkku ci mbooleem ñi nga xam ne ñooy julli si ci jumaa yi Tuuba nañuy takk ay masque àndaale ko e, loolu mooy ndigal li nga xam ne moom la Serigne Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa jaarale ci rakkam Cheikh Mahmadul Basir mu ñëw ci waa daayira Muxaddamatul Xidma ñu di ko jëmee ci mbooleem jullikat yi nga xam ne ñoo ngi julli si ci jumaa ji kon ndigal laa ngi noonu bàyyi ko ci sëriñ bi ñoo ngi ñaan sun borom subhaanahu wa taala mu may ñu ngërëmul jëfe ndigal te teggil ñu ci mbooleem njàqare yi ak jàngoro yi bi barakati Cheikhul Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.